mbokk yi nuyu nañ leen yéen ñi safoo ànd ak seen chaîne bi di Assalaamy TV ñu rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun ak kóolute gi ngeen am ci seen chaîne bi ngir mu leen di jox ay xibaar yu wér te wóor ñu fas yéene ànd ak yéen rek ci chronique bi nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak yéen saa su ne mu jëm ci jàngat walla leeral wala joxe sunuy xalaat ci li jëm ci xew-xew muy actualité ñeel mim réew muy Sénégal tey nag ñu fas yéene wax ak yéen ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum politique ak pouvoir beneen pàcc bi mu jëm ci xaalis ak li nga xam ne moom moo di ngor la mu tax ñu fas yéene waxtaan ci loolu moom moo di dañoo nemmeeku ne jamono bi ci réew mi ñaar yooyu muy pouvoir ak xaalis dafa tàmbalee yàq lu bëree bari pouvoir bi nag buñ ko waxee day xaw a laal ñi nga xam ne ñoom ñoo di politiciens yi wala ñiy politique parce que saa su ne ñoom dañuy xëcc ngir bëgg falu wala bëgg am ay ndombay tànk ci réew mi bëgg jiite am ay pouvoir ci côté boobu la ñuy waxee pouvoir boobu lañu jël kon foofu ñu xam ne politiciens yi jamono bii mën naa ne ñu ngi yàq réew mi nga xam ne moo di Sénégal lan moo tax ñu wax ko moom moo di réew mi fu mu yëngatoo fu ne politiciens yi ñoo ko yëngal wala ñenn ci politiciens yi réew mi fu mu yàqatoo am ay ay yàq-yàq yoo xam ne ñu ngi koy def lu ci ëpp ci politiciens yi lay bàyyeekoo lan moo waral loolu lan moo war a tax benn parti boo xam ne ñoom ñoo gën a néew ci sénégalais yi muy politiciens yi ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ñiy politique te réew mi fu mu yëngatoo ñoom ñoo koy yëngal. lan moo war a tax loolu ñoom ñu koy def et pourtant ñoom ñi ci yor ay ndombay tànk ñu ci bëree bëri askan wi ñoo leen di fal ñoo leen jox ndombay tànk yooyu ñoo leen wóol ba fal leen foofu te pal googu ñu leen di pal confiance bi ñu am ci ñoom la te jàpp ne war nañoo mën a jiite loolu war nañu war nañ ko mën a doxal moo tax ñu fal leen ci loolu mais dañuy wëlbatiku wane lu wuuteeg lañ leen falee woon wala ki nga xam ne moom falaguñ ko. saa su ne ay ñoñam ñu ngi yàqati réew mi di wane ne ñiñ falkat nekkul ñoo xam ne ñoom ñoo war a jiite réew mi ñun ki ñu àndal moo war a jiite réew mi ba tax ñu yàq saa su ne te loolu yëpp Sénégal moom moo ciy loru buñ bëggee réew mi développé wu néewul les politiciens ñoo koy développé amul mennum réew mu développé ci àddina moo xam ne politique moo tax mu développé wu mbokk yi mbay maa ngi fi. te war a mën a suqali am réew saa su ne war nañuy xalaat ci lu suqali réew mi di Sénégal te war ko mën a jaare ci mbay mi bu dee suuf am na fi ba mu doy bu dee boroomi xam-xam am na fi ba mu doy kon lan moo war a tax mënuñoo jaare ci loolu ngir mën a suqali réew mi mais saa su ne politique la ñuy wax du lundi au dimanche politique lañuy ñuy waxtaanee ci télé yi du lendi au dimanche journal bu ubbi politique nga fay fekk. te ce sont les mêmes personnes qui viennent qui reviennent ci ci ci ci ci ci ci télévision yi wala ci journaux yooyu wala ci site internet yi lan moo waral loolu ñoom ñu ñëw bëgg ñu imposer seen seen bopp bëgg wane ne ñoom ñoo dàq ñoom ñoo ñoom ñoo ëpp xam ci Sénégal bëgg ñooñu wan ne ñoom lépp lu wax rek dëgg la mais xool leen politiciens yi ñaata yoon la fi politicien taxaw ci télévision wax ñu invitéwaat waat ko feneen mu wax lu safaanoog la mu njëkkoon a wax weddiwaat boppam ñu koy def ay yoon yoon yoon est-ce kooku respecté nit ñi la est que jàppewul nit ñi ay dof wala jàpp ne moom lu mu wax rek nit ñi war nañ ko mën a avalé lu mu wax rek nit ñi war nañ ko mën a dégg ba tax na su may wax ak nit ñi damay jàpp ne ay dof laay waxal maa ngi jégalu ci terme bi kon mbokk yi war nañu xoolaat sunu bopp bu baax a baax a baax a baax ne politiciens yi moomuy réew mi yàq gi bëri na lool tey bàyyeekoo ci ñoom ak seeni ñoñ senegal benn groupe moomu ko senegal benn parti politique moomu ko senegal sénégalais ñoo ko moom ñoo ko bokk réew mi nag ñépp ci war a dugal seen loxo ngir mu soqaliku te jamono bii réew mi war naa tal leneen lu dul débat politique. mais jàngoro jaa ngi fi coronavirus a ngi ci sonal àddina bépp ñu ne sonal suñu réew mi di Sénégal suñu kilifa yi war cee wax xool ban stratégie la ñuy mettre place pour génne réew mi ci jafe-jafe jooju mais toujours politique toujours politique te day yàq koom-koom gaa ngi fi war nañ ci mën a waxtaan napp gaa ngi ci war nañ ci mën a waxtaan indi ci ay saafara. sàmm gaa ngi fi war nañ ci mën a waxtaan indi ci ay saafara mais toujours politique la ñuy waxtaane amul menn réew mu développé ci àddina bi moo xam ne politique moo tax nga développé amul li juge Kéba doon wax yàlla yàlla dool li ay leeram mu ne c'est le métier le plus facile monde muy politique parce que laajul njàng mu xóot laajul nga koy nga nga nga nga nga nga nga nga jàng nga maanaam nga nga topp ci ginnaaw nit ba tax nga mën ko kon politique du lu mooy lu soqali réew mi tey moom sax daan na wax ne euh, boo laajee ab jeune sénégalais lu mu xalaat ci am réewam lam lay njëkk wax mooy politique la lay wax remaniement ministériel la lay wax opposition la lay wax politique politicienne la lay wax. pouvoir bi la lay wax mu ne nga posé waat question bi benn marocain wala benn sud africain wala benn tunisien lam lay wax moom luy développé réewam lay doon mu ngi lay wax lu jëm ci wàllum koom-koom mu ngi lay wax ci lu jëm ci wàllum santé lu mu ngi lay wax lu jëm ci wàllum éducation mais ñun toujours nit sax boo génnee ci mbedd mi def micro jël benn thème. boo xam ne day wuuteeg politique soo ko laajee bu tàmbalee wax bala mu àggal ràbbu ci politique ñu jàpp nañu lépp politique la lépp dañ ko war a politiser alors que warta demee noonu kon mbokk yi jamono bi réew mi war nañ xalaat bu baax a baax ci njàng meek aveniru xale yi mbokk yi réew mi jamono bi war nañ xalaat bu baax a baax ci koom-koom ndax àddina bi am nañ ci jafe-jafe mbokk yi jamono bi war nañ xalaat bu baax a baax a baax ci wàllum santé ndax jamono bi réew mi soxla na ay jumtukaay yu ci jëm ndax mbas mi jàngal nañu le suñu réew dese na lu bëree bëree bëree bëree bëree bëri lu ñu war a def ci wàllum santé ndax bëri nañu retard boo xam ne am nañ ko ci wàllum santé te loolee mbas mi ñëw na war nañu ko mbas mi ñëw na wan ñu ay faay yu bëree bëree bëri ci senegal yoo xam ne war nañ ko dab dabaatal kon war nañoo tal loolu moo ñuy nekk ci yoo xamante ni ay problème personnel la leneen li mooy xaalis ak ngor mbokki jamono bi sénégalais yu bëree bëri bëri jaay nañ seen ngor ndax alal sénégalais yu bëri jaay nañ seen ngor ndax alal saa su ne alal jëñ leen di jox ngir ñoom ñu jàpp ne alal jooju mooy li leen di jariñ seen àddina ba tax na dañuy noppee def lépp lu ñu leen sant wala lépp lu ñu leen wax rek ngir mën a jot ci alal jooju bu dee yàq doomu aadama noppi nañ ngir def ko ngir alal jot ci alal jooju bu dee gàkkal doomu aadama noppi nañ ko def ngir jot ci alal jooju bu dee sacrifier doomu aadama noppi nañ ko def ngir jot ci alal jooju bu dee it lépp loo xam ne dafa jëm ci nasaxal dundu doomu aadama yi pare nañ pour def ko ngir rek alal joo xam ne mën nañ leen ko proposer mbokk yi alal leen rek lay jariñ faj soxla faj soxla l'argent ne sert qu'à satisfaire un besoin au-delà il amatul benn njëriñ faj soxla lay jëriñ mais jàpp naa nit mën na faj soxlaam te te du yor xaalis ñaata nit ñoo fi nekk seeni soxla di faju te yoruñ xaalis parce que dañoo jiital alal ñu bëri dañoo jiital alal jàpp ne alal mooy mooy mooy saafara seen lépp. jiital matériel jàpp ne bu ñu amul alal luñ bëgg seen àddina duñ ko am mbokk yi ngor gi newoon suñ maam yi ngor googu war ne war naa mën a dekkiwaat wala yeewwaat ci Sénégal bu nekk mu sàmm ngoram te alal bañ koo jaral muy yàq moroomu sénégalem te alal bañ koy jaral muy sacrifier moroomu sénégalem te alal bañ koy jaral muy sacrifier koo xamante ni bu ëllëgee bu ko sacrifié bu dajeeg moom mën na ci am kersa wala bu ëllëgee mën na koo regretté alal jaru ko pouvoir jaru ko kon bokk ñaar yooyu bokk yi ñaar yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax muy pouvoir muy xaalis muy ngor muy politique leen lu ci nekk war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax Sénégal néewul ne loolu moom moo koy développé la koy développé ni ñu ko waxee sànq boroom xam-xam yaa ngi fi mate nañ ko ressource matériel ressource naturelle yaa ngi fi Sénégal macha allah am na ci lu baree bëri mi ngi feeñ nañ ci jaare ànd ceeg boroom xam-xam yooyu te jiital borom xam-xam yi ngir mën a suqali réew mii nga xam ne moom moo Sénégal ñu leen di santaat baax di leen gërëm di jégaluwaat nag ci kàddu yi suñu xalaat rek lañ joxe mën naa wuuteeg xalaatu keneen waaye li ñu ñor rek mooy réew mi nga xam ne moo di Sénégal mu suqaliku ñu wàññi yàq bi wàññi intérêt personnel bi te jiital intérêt réew mi yëpp ñu ngi leen sant leen gërëm leen di jox wala di leen dig daje ci beneen numéro ci seen chronique ci seen chaîne bi Assalaamy TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf